ko avec son avec euh, son gouvernement génn nañu wax euh, ñu bëri d'accord ñu ci wax bi ñenn ñi nee nañu les chiffres dañ ko xëcc ñenn ñi nee nañu du dëgg euh, ñenn ñi nee nañu ce n'était pas à fair yow lan mooy sa posture. alors man dama jàpp ni ñoom li président Diomaye annoncé ak ñoom li ñu def c'est deux choses. c'est-à-dire parce que président Diomaye daf ni def nañ audit bi dañ ko yóbbu nañ ko Cour des comptes pour mu valider ko. su ko validé ñu doog ko publier mais jàpp naa ne des comptes validé gul. comme validé la cour des comptes à trois mois. waaw dama moom laa la wax waaw dañ doon xaar pour mu valider mais le fait de le dire tout de suite nii pour man non seulement wedd nañ le président Diomaye li mu wax parce que ils ont passé outre ce qu'il a dit mais deuxièmement jàpp naa ni jeter comme ça euh, les gens dans la vindicte populaire à la vindicte populaire man jàpp naa ni ce mais euh, na loo xamante ni peut-être man dama ci sant yàlla ngi lay nax chiffres yi ñu lay jox baaxul. et aujourd'hui donc yow da ngay souscrire ci ñoom li ñu wax. ah oui bien sûr. sur ah les chiffres ah sur certains chiffres sur la croissance. Hmm. Ah sur la croissance sur l'endettement sur, le déficit sur la croissance ils ont raison. sur l'endettement euh, les cent. quatre-vingt-douze milliards yi ñu wax. c'est des calculs j'ai pas procédé à ces calculs-là parce que quand tu parles de déficit le déficit. dafay am da nga naan da nga koy projeté sur en prévision da nga naan par exemple on fera 5 pour cent de déficit mais de déficit c'est par rapport à un PIB nominal léegi le PIB nominal peut changer mun na yokk comme mun na wàññeeku su wàññeekoo déficit bi dafay yokk mais ñoom li ma leen doon reproché le président euh, gouvernement Macky Sall mooy su PIB bi jógee par exemple 18 mille milliards ñu programmé ko am 17 mille milliards ñoom dañuy continuer di wax 18 mille milliards te alors loolu nag moo tax ñoom ñii ñoom. parce que soo nee soo nee dama def prévision wu am tant de milliards nga dem amoo tant de milliards mais booy defaat loi de finance bi ci topp mais jëlal situation de référence bi nga xam mooy réalité bi mais ñoom dañuy jël situation de prévision ba léegi situation de prévision toutes les difficultés qu'ils ont loolu moo leen ko indil beneen bi ci topp sur le PIB ñoom ils toujours travaillé sur le nominal alors qu'ils travaillent sur le réel le PIB nominal amee mooy li nga xamante ne mooy waaw li li mais soo bëggee réel bi da nga ciy génnee bi soo ci génnee inflation par exemple si waat 6 pour cent de taux de taux de croissance brut nga bëgg am taux de croissance euh, réel da jël yi nga xam mooy kii bi euh, bi nga génnee ko foofu mu jox la 4 pour cent mais ñoom nag du ñu wax ci 4 pour cent yi c' pourquoi ñoom Sonko am raison ci ñoom yaa ngi comprendre li mu bëgg wax. donc yow jàpp nga ne ñoom euh, Ousmane Sonko lu mu annoncé. li mu annoncé ci croissance bi c' est vrai lépp raison. mën naa la génne les vrais am na dama ko noté sax fii nii balaa ñuy wax nii sax noté naa lu bari fii ñun li ma gis te ba koy noté boobu loi baa ngi doog a génn léegi nag attention wax ne amul gis ñu ngi j'avais déjà noté ça avant que ci di ci wax et là c'était juste bi ñu defee la loi parce qu'ils ont fait pratiquement une loi euh, une en 2000 gis nga dama ko noté fi mm-hmm. ñu ne am nañ 6 virgule 5 6 virgule 2 pour am. fii ñu ne am nañ 4 virgule 5 4 virgule 10 la am 4 virgule 1 la am. ñu ne am nañ 6 virgule 5 la woon te bi ma koy noté Ousmane Sonko waxagul c' était le man bu ma amee loi de finance dama koy jël damay annoté lépp rek kon donc sur la croissance ils ont raison.